waxtu jot na bisimila ci xibaaru digg bëccëg bi amuñu on n'a pas un candidat qui est originaire. bëccëg euh, euh, di Alioune euh, di Aliou Mamadou moom mi nga xam moom lañ daal di samp ngir mu daal di bokk ci wootem njiitu réew atum 2024 ma nga woon foofu lay ca caajaay nekk fi nga xam ne fa la fekk baax dajale fa mboolem ñoo xamante ni ay militant man la ñu nekk ca département bu Mbour tey daal di jaajëfal bu baax baax kii di kilifaam Serigne Moustapha Sy gannaaw bi ñu ko tànnee mu nekk seen mbër wootem njiitu réew atum 2024 bokk na ci tam jëm ci wàllu xibaaru digg bëccëg xalif général kulu murit euh, Serigne Mountakha Mbacké ci kaddu ki nga xamante nii rek moo yor kaddu gi euh, di Serigne Bassirou euh, Mbacké lépp loo xam moo jëm ci wàllu wote ak lu soxal wàllu politique danañ ko daal di dakkal vingt 2024 bu weesoo foofu ca diwaan gu tedd ga ca tuubaa bokk na ci tamit ministre bi yor wàllub comme euh, fii ci biir euh, réew mi ak i tamit euh, consommation petite ak moyenne entreprise Abdou Karim Fofana ubbi na ñetteelu édition weer bi nga xam moom lañ jagleel wàllub lii nga xam moom lañ tuddee consommer local maanaam daal bay dundee jën ci dikkaat ci nu mu gën a yaatoo mbokk yi yeneen i xibaar xibaaru tàggat yaram li ci yéene kaay lañ koy ndar keppe ak El Hadj Abdoulaye Naar neskis ñu soobu ci yaatal gi maaleykum wa ñu leen daal jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi nañ ko junjee noonu la ñu daal di sooboo ci yaatal gi ak candidat wu PUR di Aliou du euh, Dia moom mi nga xamante rek tànn nañ ko ngir mu nekk seen mbër boote bi jiitu réew atum 2024 euh, ma nga woon foofu la ca caajaay nekk fi nga xamante ni fa la fekk baax mu daal di dajale mboolem ay militangam ñi nekk foofu foofule ca département bu mbuur bokk nañ tamit ay kilifa yu bokk ci biir parti bi ña nga ci boobu leen daje gannaaw bi nga xamante ni daal nay jaajëfal bu baax a baax sëriñ Moustapha Sy moom yi nga xam moo ko daal di tànn ngir mu nekk seen mbër ñoom waa PUR wate njiiture atum 2024 ah, ci yaatal dañ koy ah, teelu ci micro Omar Ndiaye ak Babacar Thial ñu teewal foofu ca diwaanu Mbour moom mi ne di kandaaw PUR Aliou Mamadou Dia. Bon, on n'a a un candidat qui habite objectif c'est de rafler le département de Mbour intégralement mais am nañ loo xam ne Sénégal kenn amul am nañ discipline am nañ détermination am nañ kilifa ku nekk suñu ginnaaw toog te ruq ba ñu ñaar waaw donc bu ñu lu ne mën nañu ko wax détermination rek la laaj donc maa leen di wax ni en un mot dañoo war a gagner région de Thiès parce que nag suñu victoire foofu lay jaar région de Thiès département de Mbour toutes les communes yu fi nekk dañ fa war a gagner avec brio donc nañ taxaw ci loolu pour mu pour nga pour mu mën a nekk donc loolu nag li ma wax rek taxawaay moo koy andi moo koy def donc te aw ma aw benn euh, doute ci loolu que di ngeen ci. ba tey ci wàllu politique la ñuy des ni ak lii di wote yi danañu ko wéyal foofu euh, foofile euh, ca diwaan gu tedd ga di Touba euh, moom mi nga xam moo yor kàllu kàddu xalif général kullu murit muy Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr moo xam ne lu ni mel waaye tamit bu weesoo atuma 2024 bépp bureau de vote bu nekkoon ca biir Touba dañ ko daal di tuxal maanaam wote dootul amati foofu la ca diwaan gu euh, tedd ga dañ siy teelu kàddu yi nga xamante ne que moom lay daal di àggee ñii di askan bi Serigne euh, Bassirou euh, Mbacké Abdoul Khad ci micro Jibril Khoulé. joxewoon na ndigal na naa ko leeral. sëriñ bi joxe woon na ndigal na naa ko leeral. mooy bi mu fi waxee. mooy bi mu fi waxee. jox ndigal Baye Fall. jox ndigal Baye ba waxoon ci élection yi. ba waxoon ci élection yi. wax ne nit ñi dañ ko déggee ne. nit ñi dañ koo déggee ne. sëriñ bi bëggatul ko wate ci dëkk bi. sëriñ bi bëggatul ko wate ci dëkk bi. waaye daa bëggoon ñu génne ko dëkk bi. waaye daa bëggoon ñu génne ko dëkk ba ma ñibbisee itam. ba ma ñibbisee itam. sëñ bi jox ma ci ndigal. sëñ bi jox ma ci ndigal. ma àndoon ko jarbaatam di secrétaire am xaadim suñu xaadim Diop. ma àndoon ko ab jarbaatam di secrétaire am di suñu xaadim Diop. ak ñam ko seqaloon. ak ñam ko seqaloon. ñoom ñoo ca liggéey. ñoom ñoo ca liggéey. ba bindoon ko ci kayit ba bindoon ko ci aw kayit niñ ko xalaate niñ ko xalaate jébbal ko sëñ bi jébbal ko sëñ bi sëñ bi wax leen ñu andil ma ko sëñ bi wax na ko nañ ko yët sëñ Basiru ba ma ko yutee ba ma ko yutee mu ne ma yët ko njiitu réew mi mu ne ma yët ko njiitul réew nii laa ko xalaate nii laa ko xalaate ma jóge fii dem ba jox ko ko. ma jóge fii dem ba jox ko ko. mu xool ko mu xool ko. yónnee ko ministre de l'intérieur. yónnee ko ministre de l'intérieur. ba mu ko ko joxee nag. ko ko joxee nag. ñoom bañ ko saytoo. ñoom ba mu ko saytoo. ñu xool xam ne xaj xat na. ñu xool xam ne xat na xam ne xaj na. wala mën naa indi jafe-jafe. wala mën naa indi jafe-jafe. wax ne kuy wate ku ne. ndax dañoo wax ne kuy wate ku ne. sa carte d'identité. sa carte d'identité. fa nga war a watee dañ ko caa war a def. fa nga war a watee dañ ko caa war a def. bi sëñ xamee loolu nag. bi sëñ bi na. mu ne kon jàmp na at mi moom at mi moom nañ ko bàyyi na meloon nañ ko bàyyi na meloon ndax bëggut dara loo dana gàllankoor nit ñi ndax bëggut dara luy gàllankoor nit ñi di jóge ci moom di jóge ci moom kon nañ ko bàyyi ni meloon kon nañ ko bàyyi ni meloon bu demee ba élection yi weesu bu demee ba élection yi weesu ñu daal di wax li soxal wàllu koŋ ak jëwriñ bi nga xam moo gàlloo li nu mel ak itamit wàllu xéwalu gi euh, petite ak moyenne entreprise di Abdou Karim Fofana ubbi na ñetteelu édition muy ñetteelu yoon boo xam ni weer bi ñu jagleel wàllu euh, li nga xam moom mooy bay dundee maanaam consommer local tey ci àll ba démb ci alxames bi lañ ko daal di ubbi fii ci Ndakaaru bokk na ci tamit ñu daal di gën a ñoŋal euh, li jëm ci wàllu koom gi ak i tamit la ñuy dundee euh, ci Afrique sowu jant rawatina mbootaayu ba UEMOA ak i tamit nañ ko daal di euh, doxalee ñu dëppoo ko lu ni mel kon fii ci Ndakaaru lañ ko amalee foofu ca place du souvenir ka fa teewoon di suñu ndaw biram xari ndaw Sénégal ci njiitalug Macky def na ay jéego yu am solo ci politique ngir ñu mën a bay di ko dundee weer wu ñu jagleel consommé local di jamono ju am solo ngir fësal produit yi nga xamante ne ci espace UEMOA bi la ñu koy bayee njiitu réew bu Sénégal ñu tànn ko def ko parrain ci ngi tellu édition bile ndax jéego ak itam résultat yu am solo yamu ca am. le comité national d'organisation du kuréel gi taxawal bile ndaje muy weer wu ñu jagleel bay dundee dafa tànn njiitu réew mi Macky Sall ngir jéego yu am solo yi nga xamante ne bi def na ko. ba nit ñi di mën a bay di ko dundee wante itam résultat yu am solo yi nga xamante ni bi rek am na ko ca bokk na ci itam di tax ñu taamu ko muy jéego yu am solo yi nga xamante ni bi rek def na ko jaarale ko ci njàng meek njàngale mi ci formation professionnelle mbay mi ak ay jumtukaay yi nga xamante ne dañu koy faral di jëfandikoo. dans le secteur du numérique dans le domaine des infrastructures. jëwrin bi ñu dénk njënd meek njaay mi di xamle ne weer bi ñu jagleel consommer local doon na lu am solo ngir mën a jëmmal lépp loo xamante ne bii ci réew mi la ñu koy bayee gan yi ñëwoon ci bile ndaje di encourager ñi nga xamante ne ñoo di acteurs yi wante itam di sàkk ñu dugal seen loxo ci mbir mi bu ko defee ñetteelu édition bile daal di am réussite. ñun am nañu suuf am na nañu ndox am nañu fer am nañu géej am nañu suufur ñun li ñu am loolu mooy consommer local. waaye li gën a am solo nag mooy xam jëfe la promotion fësal njariñu bay dundee mooy solution bi nga xamante ne bi moom la ñu mën a taxawal gën ko fësal ngir mën a yokk kaaraange yi réew mi wante itam comme koom gi damay profité ci bile occasion di wax ni UEMOA nag daanaka taxaw na temm ngir fépp fu ko soxla mu daal leen fekk si ngir am ay stratégie yu am solo ngir gën a dooleel seen mbëbët. ubbiteeg weeru consommé local ci espace UEMOA bile ñu war ko amal ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre jàpp juróomi fan ci weeru novembre atum 2023 kilifa yi ñu ngi ko jeexale ci ab visite bu ñu def ci stand yile nga xamante ne am na ay produits locaux yu baree bari yu ñu fi exposé fii ci place du souvenir africain. fa euh, Birame Khare Ndaw ñu daal di waxaat lu jëm ci wàllu potem njiitu réew yi ñuy dëgmal ak ñi nga xamante moom mooy carte électeurs yi euh, seeni i borom ñu ngi tàmbali di ko jël par nànk-nànk waaye tak euh, foofule ca préfecture bi nekk foofu ca diwaanu Mbour lu toll si junni ak juróom-benn téeméer ko juróom-ñeent fukk ci ay carte yu bees yoo xam ne ma nga fa ñeent fukk yeeg ñeent rek la seen borom euh, morom boroom daal di euh, jël si waaye foofu ca SEDA ñoom nee nañu daal ba fi mu nekk ni daal amagul lim bu takk boo xam ñoom ñu ngi ñëw di jël si seen i carte électeur la ko sabab mooy euh, jotu ñoo def communication maanaam daal jé yëgal askan wi te it ñaax leen ngir seeni i pare na ñu dem ñëw jël si ko foofu la ca préfecture bi nekk ca diwaanu Mbour Omar Ndiaye Babacar Thial. ko si Ndiaga bokk ci membre 119 cartes rek la ñuy distribuer ci ancien stock bi ci li nga xamante ni nii moo nekk diggante 16 octobre ak le 20 octobre 2023. parce que soo gisee ne depuis le 15 mai ba léegi 119 la ñu retiré te ni ma leen waxee sànq ci retrait bi ni mu amee au niveau des préfectures sous-préfectures wane na amul amul affluent. li jëm nag ci carte yu yees yi moom semaine bii di ñëw la ñu nar tàmbale li nga xam ne mooy distribution yi loolu la ñu xamal. fi mu nekk nii euh, cette semaine bi ñu nekk nii euh, à partir de lundi. Euh, dañu mettre en place ay commi euh, commission au ci au niveau des préfectures et des sous-préfectures parce que dañoo jot benn note de service bu ñu wax ne comme nouvelle comme carte yu bees yi ñëw nañu ci sous-préfecture ak préfecture yi euh, na na seddaa dem superviser ko donc su ngeen demee foofu war ngeen fa fekk ay superviseur de la SEDA bi fay nekk di contrôler naka la retrait boobu di amee. moom moom sax jàpp na li jëm ci distribution carte électeur yi moom dafa manqué affluence ci diwaanu préfecture. ndax am na euh, affluence ndax nit ñi ñu ngi ñëw bu baax mais chiffres yi wane na ne ñëwuñu. ci commune bu Mbour nag lu toll jamono ji ci 1699 cartes ñoo fi disponible 42 rek lañ ci jot a distribué ci diwaanu préfecture lañ fa nemmeeku moo ñàkk affinage buñ sukkandikoo nag ci yile acteur dara war ak communication ñu daal di ci mbootaay bi ëmb wala bokk association waaye jur euh, ndongo yi wala bokk ay étudiants yi nekk ci Sénégal bootu ci mbootaay bi ñu tuddee UNAPES ak i tamit euh, yenn ci ay euh, teewaayub yenn parent d'élèves yoo xamante ni ñoo nekk fii ci biir Sénégal amal nañu ndaje ci seen biir démb ñoom la leen tax a jóg mooy jàppale seen i doom di ay ndongo rawatina étudiants yi nekk foofule ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lépp loo xamante rek moo nekk si ay jafe-jafe ñu daal di leen taxawu bu baax a baax ba ren jile seeni i jafe-jafe daal di mën a wàññeeku bu baax a baax ñoom ñi le waay juru ndongo yooyu le ñu ngi àddu ci micro euh, kii di Ndeye Fatou Diop. asalaamaaleykum suma mbokk waajur yi suma mbokk ndongo yi l'union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal ñu koy dippee UNAPES mu ngi ñaanal atum scolaire bu baax boo xamante ni bu du ànd ak benn yëngu-yëngu ah ñi nga xamante ne nag ñoo étudiants yi maa ngi profité ci li nga xamante ni tey la tàmbali mooy waxtaan bi ñu wax war a waxtaan pour xool nu war a nu université Cheikh Anta Diop war a ubbee ci anam bu mucc ayib maa ngi profité ci occasion boobu di leen ñaanal ñu ubbi ñu yeggali année eh, njàng seen njàngam daaw ci anam bu mucc ayib anam boo xam ne dana ànd ak sécurité dana ak ay kaaraange ak matuwaay di leen ñaanal également buñ loolu weesoo ñu eh, tàmbali eh, année bu at mu bees bi deux mille vingt trois deux mille vingt quatre ànd koog xale yi nga xamante ni dañuy doog a am bac maa ngi profité ci occasion bi di euh, wax euh, suma mbokku waajur yi ak suñuy suñuy doom yi nañu sàmm li seen xefi bët euh, barabu njàngukaay yi barabu sàkkukaayu xam-xam yi ndax. di wax ci euh, leneen ak li nga xam ne moom moo soxal wàllu pa dem beek dikk bi diggante Sigicoor euh, foofu ca Casamance ak euh, Ndakaaru mu soxal ci gaal googu nga xam ni moo doon ndaw ca diggante ba. dafa daal di taka tempe ñaari fan ci weeru juin bi ñu génn ba tey jilee lu ñu mel indi gàllankoor lu jëm ci wàllu koom rawatina lépp loo xam ne dañ koy jaay diggante Casamance ak Ndakaaru dafa daal di taka tembe rek ba tax nañ ñu ciy yëngu am nañu ay gàllankoor bu baax a baax ñen ñi nga xam daje nañoo foofulee ca garage Bignona ak it tamit Patte d'Oie ñu ngi wax jafe-jafe yi nga xam ñu ngi koy jànkoonteel gannaaw bi nga xam ni gaal gu mag googu dafa daal di taxaw ñaari fan ci weeru juin bi ñu génn reportage euh, ànd ak ceek ak Aminata Traoré fan ci weeru juin ba léegi li di liaison maritime Dakar Ziguinchor dawatul mu indi ab njàqare ci askanu Ziguinchor rawatina yi jaaykat waaw suma marchandise bi day jóge Casamance di ma fi fekk léegi waa ci ñu tegal ñu tegal ma ko ci oto oto bi léeg-léeg mu wàccee ñu boo maraîcher léeg-léeg mu wàccee ñu fii yoo gis nga suñu nu ñuy jaf léegi après nga fayaat taxi mu dem. lekkatuñu naanatuñu ndax boo yoree benn saaku bi nga fay ko te lii fi ñu koy jëlee sax du biir Ziguinchor lañ koy jëlee du junne lañ koy jëlee. boo ko jëlee jinne jënd ko jinne nga fay foore jinne ba pare nga ñëw ba suñu frontière nga fay nga dédouané ko. door a dugg si soo fay ko foore door koo yeb ki oto yi. liggéey baaxatul dañu mënul a toog rek mooy suñu liggéey baaxatul. ñuy xamle ni ay jafe yu metti la leen indil ba fi ñuy wax ak yéen xamuñu lu tax ñu daal di arrêté yooyu la ñetti bato yu doon daw. nag ñun xamuñu lu tax état téye bato bi ba léegi ndax bato bi du caagaan xëy na dafa yàqu ñi xam ne dafa yàqu mais jékki-jékki ñetti bato mu ñi arrêté ndoor yëpp ñetti bato yi. loolu jaaxal na ñun ñun baana baana yi. ñoom li ñuy def ni baaxul parce lii du yoon ndax état bi dafa war a xam ne ne doomi doomi Casamance ñoom kii bato bi moo leen arrangé léegi moom bu ko téye ñu ñuy def. ci loolee ñuy sàkku ci nguur gi ak jëwriñ bi ñu dénk wàllu napp gi ngir mu delloo si leen seeni bato. leen di wax ne ñu jàpp nañ ci jàpp wàccee suñu bato bi wàccee bato bi. parce que waruñu ko waruñu koo téye noonu bato bi nekk noonu ñun ñi di sonn seen bagage yi di nekk ci oto bala muy ñëw ay deux heures mbaa mu ñëw guddi c'est pas du normal ndax bato bi lu lu war lu ñu war a marchandise yaa ngi nii xoolal li ngay am dix sacs moom ngay am moom ngay jëlee léegi da ngay wàññi di am ay deux sacs ay ay trois sacs. juróomi weer a ngi nii ñetti bateau yi doon daw diggante dakaar ak jigéen Ziguinchor daal di taxaw ka waraloon moo di mbiru kaaraange waaye fi mu nekk nii jàkkare ak tiis moo fës ci kanam mu ñi les nga xamante ni ci boobile bateau la ñu doon sukkandiku ngir Traoré Augustin Ka ñu daal di wax lu jëm ci wàllu mbëkk mi nga xamante ni barsa wala bokk Barça mi ngi wéy di ëlëm askanu Sénégal te itamit di indi tiis ak njàkkare euh, ndaxte foofu la ca diwaanu Ndar géej moom ca yoonu pa gànjool ga am na gaal goo xamante ni dafa daal di diik foofu ca njëbeen gànjool ca diwaanu Ndar géej am ñu ci ñàkk seen bakkan loolu indi ay njaboot yoo xamante ni jamono jii ñu nga ca tiis Ah, te it jibal nañu seen kàddu ci tiis googu nga xamante ni jamono ji ñu ngi koy dund ah, ci micro Adama Sall El Hadj Gueye ñu toogal foofu la ca Ndar Géej. wax sama doomu mag kam ne bu mu bokkal ndeeg baay mu ngi ci l'essentiel bi gaal bi dafa toj ci digg bulba bi gaal bi mu ñëw fi indi fi boppam bulba bi moo ko indi fii ah, daanak boo gennal gi yëpp ñu ngi ci bulba bi. waaye man dañ ma woo wàllu neuf heures ba fekk maa ngi voyagé waaye moom dégguma mosuma wax. te day dem mosuma ko dégg wallaahi ak tillaahi. allo moom. ah ah gisu ma maa ni doog a wàcc ndaar de wàcc ndaar bi bi jël oto fekk foofu rakkam. kii mooy papaam. moom ndar doon liggéey lu mat fukki at fala takk soxna tool yi mu ngi saaw parkam yee assuré naa ba muy dem bàyyi yëgul ndey yegul rakk yëgul mag yëgul ci la mën a assuré. gu subu teer rek ñuy ruuma ndaas ruuma ma benn nit moo fi nekkoon wala ku leen ñaari nit day wax lu ko nekk comme ni dara kottu gaal bi kon ma nga le di yëg tiis ak itamit di nettali mbir ya na mu demee seen i mbokk ñàkk seen bakkan ci gaal googu nga xamante ni moo daal di toj ah, ca bël ba te it gisatuñu seen i mbokk jamono ji ñu jëloon yoonu Barça wala bokk Barsak foofu njëtti bu nu Tambacounda moom jëwriñ bi yor wàllu kaaraange eh, réew mi di ministre de l'intérieur Ah, di maître Sidiki Kaba jot na jàppale lu toll si téeméer ci ay ndongo maanaam ay élèves mu jàppale leen ci ay jumtukaay yu am solo ah, moom mi nga xamante rek moom mooy njiitu association pour le développement du Sénégal oriental ah, moom ngir jàppale gone yooyu ngir seen jàng daal di mën a ñoŋ yi ren jile ñu teelu ko moom jawriñ bi maître Sidiki Kaba ak musa Omar Gueye Leral TV ca Tambacounda. fii l'inspecteur d'académie monsieur le maire bëgguma lim ku lim juum ci cérémonie bi nga xam ne dañuy offrir ay kits scolaires xale yi di leen encourager di leen wax ne ñu jàng et di leen wax ne tamit que ci éducation la ñu mën a am progrès dans la vie di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. ma nga noonu euh, jëwriñ bi maître Sidiki Kaba doon jàppale ndongo yi nekk foofu la ca diwaanu Tambacounda waaye ca leneen tamit ngir daal di mën a jàppale lii di société civile ak i tamit soxna yi euh, ci seeni i yëngu-yëngu projet VLF e Sénégal amal na benn ndaje waxtaan bu yaatu weccoo xalaat lu jëm ci li nga xamante ni euh, noonu lañuy ñuy daal di jaarale seeni i koppar ngir jàppale yenn ci ay soxna rawatina tamit ay mbootaay.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 daal di euh, tàmbale ak wàllu football tournoi euh, coupe HCCT euh, bi ñu jagleel ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng kon demi-finale yi ñu ngi ko doon jongante démb bi ci njëkk Africa Foot ak Fierté FC bu Mbàkke ñoo doon daje waaye ca mujjantal ba équipe boobu ngeen gis di Africa Foot moom moo daal di gagné benn bal ci dara match bu njëkk bi Gazelle moom dafa daan Étoile Lusitana benn bal ci dara Euh, kon euh, Gazelle ñoom moom ak Africa Foot ñoom ñooy daje euh, ci final gu mag googu ñuy fàttali tournoi bi dañ ko jagleel équipe yi nga xam dañ nekk ci championnat amateur bu Sénégal di xool ren kan mooy daal di wutu ñii di waa Jeanne bu Dakar ci wàllu nawetaan la ñuy soobu ak programme quart de finale ODCAV bu mbuur tey jii la ñetti waxtu bi mu xaajee wala bokk ci kanam tuuti rek ay simili yu néew kii di bokk jëf mooy njëkk a dajeek ay ASC Réveil foofu ca stade. Caroline fay bu Mbour juróomi waxtu bu tegale fanweeri simili ASC Jokko ak Top Jeunesse juróom benn waxtu bu xaajee ASC Super Rail di dajeek ak ASC Médine juróom-ñeenti waxtu bu tegalee fanweeri simili ci guddi Super Étoile ak Médine Extension buñ ca noppee ñu daal di wax ci championnat bu Sénégal première division dinañu ko tàmbali ndaje yi nga xamante ni rek ëllëg lay daal di tàmbali muy championnat national première division bu Sénégal suba Sonacos Dakar Sacré-Cœur moom ngeen gis noonu US Gorée Diambar Stade de Mbour Génération Foot Casa Sport li Linguère AS Pikine US Wakam Teungueth FC ak Jamono match bu mag bi ñëpp di xaar ASC Jaraaf ak Guédiawaye Football Club waaye tamit Ligue 2 ñoom itamit danañu tàmbali seen i jongante euh, suba programme bi nii lay tëddee RS Yoff ak Njàmbur ñeenti waxtu bu xaajee lay match yi di commencé Thiès FC Oslo Demba Diop ak AS Douane dimanche la ñu koy wéyal AGEL ak NGB ñaari tali Duc Kër Madior Walidane Sneps ak HLM Amitié football club loolu moo soxal championnat national première division ak deuxième division ëllëg la ñu koy tàmbale. Europa League la ñuy wax match yi nga xam dañ ko doon jongante euh, démb ca bitim réew Olympique de Marseille am euh, jéego gu am solo bi mu def démb foofu ca Vélodrome daan ñi nga xamante ne rek moom mooy ay Athènes ñetti bal ci euh, benn ak bit bu njëkk bi nga xamante ni. Euh, ki ko dugal di Vitinha beneen mbit bi euh, di Harit ak euh, beneen mbit boo xamante ni Veretout moo ko dugal ci wàllu penalty ñu gis ne kii di Ismaïla Ndiaye Iliman Ndiaye bokk ak Ismaïla Sarr def nañu démb ay match yu am so bu am solo démb wane seen bopp bu baax a baax moom ngeen yi gis noonu waaye tamit ci yeneen i résultat Liverpool moom dafa daan Toulouse juróomi bal ci benn Stade Rennais ñoom dañu daan cos ñaari bal ci benn Brighton daan Ajax d'Amsterdam ñaari bal ci dara ay Roma gagné Slavia Prague ñaari bal ci euh, dara Bayern Leverkusen euh, kon euh, match bi nga xam moom mooy Liverpool daan ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy waa Toulouse juróomi bal ci benn bu ñu co noppee dañu daal di wax ci ak ci soxal wàllu karaté ak suñu gayndey Sénégal yi nga xamante ni ña nga woon foofu foofile ca Hongrie Euh, ci tournoi ba ñu doon bokk waaye ñoom gaynde Sénégal euh, ci góor ñi ñoom ñii di waa Bosnie Herzégovine ñoo leen éliminé euh, ci par équipe waaye tamit ci jigéen ñi ñoom waa Belgique ñoo leen gagné kon daal ñu wax ne rek ñoom gaynde Sénégal dañ daal di nërmelu ci ndaje yi nga xam ne ñu ngi ko doon amal démb alxames ci tournoi wala bokk championnat de karaté bi ñu doon amal démb foofile ca Hongrie muy championnat du monde senior. kon mbokk yi mi ngi noon loolu la woon li gënoon a fës ci xibaaru tàng yaram li mujj ci xibaar yi muy li gën a fës ci yéen kaay tey dañ si ànd ak ak El Hadj Abdoulaye Naar salaamaaleykum sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke moo ni woon dudul yàlla yonent bi ak liggéeyal sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul aw ma ceg defar aw ma ceg yàq kàddu yooyu la sëriñ Mbàkke yeesal ba tax na lépp luy mbirum àdduna tëlaalewu dara ak lislaam wala njàngalem sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul sëriñ Muntaxa Mbàkke wicceex na cay loxoom ba mu set wi lu demee ni politique ak yëngu-yëngoom yéenekaay yu bari xëy dañu ko àggee na ca Les Échos di xam ne na ginnaaw luy politique ak ko defub liggéey na la fa ko ca dimbali ndax liggéeyam bi na ci kanamam moo ko ñor te doy na ko sëkkub liggéey politique ak yi banga bangam ne sëriñ bi bëgg dégg ba tax na mu ñaan képp ku cay yëngu booy wax ak moom sax bul wax ba laaxaale ci politique noonu itam la koy sàkkoo ci képp ku yewoo ci dëkk bu selli boobu di Touba ba lépp lu nuroog ak yëngu-yëngoom bu ca kenn wax baa nga koy jëf ci biir dëkk dëkk bi sax ci sëriñ bi na moom moo di bureau de vote ñu toxal ko ca noonu la ca amale jéego yëkkati ab xaatim teg ko ci loxol nguur gi ngir ñu jàppale ko ci li mu bëgg lépp a ngi ci yéenekaay bi direct news ginnaaw bi ko nguur gi saytoo gis ne diggante fii ak élection présidentielle 2024 mën na na peexat ndax kenn ku nekk war nañu rek ci sa carte d'identité bërëb ba ngay voté te noonu la sëriñ bi gis ni kon lii bu nu ko jëmmalee ci élection yi mën naa indi gàllankoor ci doomu yi te lépp luy indi gàllankoor ci doomu du bàyyi ko mukk ci moom mu dellu sàkku ñu bàyyi ko ca na mu meloon amalee ko nañu ko daan amalee ba yeneeni élection ba tey kaddu sëriñ Muntaxa ci biir yéenekaay bi di turbine politique daal ca dëgg-dëgg sëriñ bi bëggut teg ci réew mi réew mi quotidien ga mu xëy tey ji moo di Ousmane Sonko ak fa wér-gu-yaramam toll mbokk yi na ñëpp xam ne Ousmane Sonko jamono ji benn tànkam mi ngi ci àdduna beneen baa nga laaxira ki ko xam di avocat bi di Juan Branco bokk ci ñi koy layal di xam ne ne Ousmane Sonko jamono ji mi ngi ci diggante dund ak dee médecin yaa ngay araftu nguur gi naan leen mbirum Ousmane Sonko fii mu ne jéggi na dayow yëral xët wu njëkk bés bi la jour Ousmane Sonko nekkatul na ba àgg ci 40 degré boole ko wàccu am Ousmane Sonko jamono ji la muy wax kenn xamatu ko ndax donatul waxi nit yëral xët wu njëkk le quotidien ginnaaw bi médecin yi araf tongoor bi direction de l'administration pénitentiaire maanaam ñiy garde Ousmane Sonko ñoom it génn nañ ab bataaxal ba araf tongoor ngir xamal Aïssata Tall Sall mi jiite justice bu Sénégal naan ko fii mu ne jug jot na balaa wees ndax lu jëm ci wéygërëm Ousmane Sonko jaaxal nañu ba àgg ci lool procureur moom la ko jaaxal mi ngi ci biir yéenekaay bi di Vox Populi mu di données médicales yu Ousmane Sonko yi nu fi wite yoo xam ne kenn wuru caa teg bët kudul ñi mu soxal bokk na soxal mu di administration pénitentiaire ginnaaw bi mu ko xaatimee ngir àgge nguur gi fi wér gi yaramu Ousmane Sonko toll jamono ji te dëgg-dëgg kaneen ku dul ñii wuroo teg bët lii waaye nag mbir mi jamono ji tas na tasar ci digg dëkk bi procureur nag loolu metti ko ba tax mu ubbi enquête ngir teg loxo ki jëf-jëf ji le témoin di laaj naan fi wit organisé par l'état jëm ci mbirum wér gi yaramu Ousmane Sonko Sonko son na ba tax na mbooleem ñu ko séq ñëpp yi ba ci sax garde ñoom ñi ñëpp a génne ay ko ministre de la justice Aïssata Tall Sall ngir ñu teel a jug ci mbir mi balaa ëppi loxo li ëppi loxo ba àgg ci lool mi yéenekaay bi di enquête mu di mbëkk mi barça wala barsàq ma ngay wéy di defi jallooreem bi la yoon ma ngi ko defee ca gànjool ndar gànjool jamono ji ci naqar ak tiis lañu nekk li ko waral moo di seen doom yu doon dugg ca gaal ñu duggoon ba tax am ñu ca ñàkk seeni bakkan ba tey ji enquête baa ngay wéy ngir ñu mën a takk lim bi ci faatu dëgg-dëgg lim bi ñu teg loxo ci ay convoyeur toll nañ ci junni ak juróomi téeméer ndax jàpp nañ ni mbëkk mi lu jiig njaag ñooy njaag tey lu jëm ci mbëkk mi barça wala barsàq ci biir yéenekaay bi di source a yéenekaay bi di ñu xamal ni ci lu kenn yëgul ministre de la défense bu Espagne ñëw na fii ci Sénégal te leen rek nekk nag moo fi waral ay tànkam mu di waxtaan ak nguurug Sénégal ngir ñu mën a delloo si nga xam ne ñoo nekk Espagne te jaar ci ndox mi ndox mi képp ku ci jaar jamono ji wutali Espagne mën ngaa àgg waaye toog fa du yomb li ko waral moo di ña fa jot a nekk jamono ji dina leen delloo ci lu yàggatul dara li xew dëgg ci mbëkk mi ak kiimtaani ci am lépp a ngi ci biir yéenekaay bi di Libération bokk na ci kàddu yi Badou Sène nekk consul Sénégal foofu la gi na xabaar boobu wér moom Badou Sène di di wër boori Cap Vert yàlla yàlla ni jaajëf euh, El Hadj Abdoulaye Naar moo ñu doon euh, yëral li gën a fësee ci yéen kaay tey mbokk yi foofu lañ daal di yëkkatee jotaay bi di jaajëfal ABC ak i tamit euh, Makhtar Yirim ñoo nekkoon ci technique bi maanaam ci régie ba waaye tamit Ndeye Fatou Diop moo toggoon xibaar yi lu jëm ci wàllu par réalisation yéen i tamit teelu jaa ngeen jëf mucc mucc la ñu yendu ak jàmm.